nga ba ma tàyyi ngeen soog a def lu baax noblesse dafa am di gëm naa ni moo gën ngeen Dakar Info point net tey nag ñu am mbégte dalal ndaanaan si ganu kër gi ndaanaan la xale la di goney dugaar fa la juddoo yaroo fa màggee fa Daouda Ciss lay wuyoo ñu gën ko xam ci Daw Maximum dinañu xam lu tax Daw Maximum bi moom jot naa génne ci atum 2015 euh, premier maxim maxi yi mu ne maxi nag moom mooy quatre titres yi nga xam jotoon na ko génne jox ko fans yi euh, doxantu woon na fi ba Guinée euh, ci xeex bi nga xam doon nañ ko xeex li nga xam mooy Ebola am na ci compétition bi nga xam ni participé na ci dinañ ci waxtaan dinañ waxtaan également ci li nga xam ne moom mooy c'est live ay euh, prestation yi nga xam mi ngi koy jëf si Dakar ak si euh, Sénégal waaye dañu waxtaan également si li nga xam ni jot na ko génne moo ki xam moom mooy Ndiaye euh, foofu si TFM di nag vraiment xeex nag wala mu woyal les enfants de la rue ah les enfants talibés comme ni ñu koy waxee waaye mi ngi waajal également beneen maxi bu sept titres dinañ si waxtaan kooku nag mooy xale bi nga xam mooy xale dugar gi ñu bàyyi ko rek mu interpréter benn son si El Hadj Baba Maal bu dandale ñool ñu soogay waxtaan ak moom wali nyuma kalaja wali baba ah baba mali bivo lave wali nyuma kalajo baba ababa malibi folaɓe walni ñumma kalajo futano yetimma fuuta sabu yeneti jima kalajo adandele ñogol no donuma na ñajan kalajo futa no yetimma fuuta sabu yene nandema kalajo adandele ñogol no donuma na ñajan kalajo futa no yetimma fuuta sabu yene yagorema kalajo adandele ñogol no donuma na ñajan kalajo futanu yetimma futa sabu yene nande makalajol adandele ñogol no duwono mana ñajankalajol aha kalajo aha kalajo ablay ablay ablay yelima ablay yelima aha aha aha kalajo aha kalajo Ablaye Ablaye Ablaye limam Ablaye limam aha aha aha kalajo aha kalajo Ablaye applying, applying lima, de talent de talent comme on dit euh, moom nag gone dugaar la ñu bàyyi nga nuyu ñi nga xam ñoo ñuy seetaan si Dakar info point net. waaw salaamaaleykum waaleykum salaam salaamaaleykum gars yi. Euh, avant tout dama lay siyaare di la béggee yow sama grand waaw déjà c'est la première fois jëloon nga ma Walfa TV ndeysaan euh, Petit Déj euh, waaw Petit Déj 2016 mhm. tey ma mhm. newaat fii nii mhm. Dakar Info point net ci ganu kër gi donc ça me fait plaisir quoi maa ngi lay béggee di la ñaanal jàmm gudd fan bon maa ngi nuyu téléspectateurs yi di leen siyaar bu baax a baax waaw di leen jaajëfal nag képp kuy seetaan kii di leen nuyu bu baax a baax di nuyu waa Dugaar di wa waa Jamñaayo mhm. waa Parcelles waa Fass ñoom ñëpp maa leen di nuyu Sébi Koutaan bàyyiwuma fàttewuma kenn eh, li ma marqué moom mooy eh, un six mhm. séeréer nga waaw waaw waaw eh, mais ngay làkk Haalpulaar mhm. naka la c'est quoi lan mooy secret bi wala est-ce que da nga leen jege lool bon bon du secret aventure moo ko def loolu aventure moo ko def parce que déjà yàgg naa fa. Mhm. def naa fa sept ans. sept ans voilà ça fait occasion ma jàngale yeneen làkk yi. ok xam pël susu ak yooyu am maninke yoo xam nga di faraatu tuuti tuuti. macha allah mu mel ne compé li nga xam ne amoon na foofu compétition bi nga xam ne amoon na Guinée Guinée ak Ebola bi. Mhm. comme ni mu tasee woon un tout petit si si si euh, Libéria si si si Afrique Afrique de l'Ouest Euh, compétition boobu euh, fala la fekkoon. Ah, euh, maanaam Ebola bi fala la fekkoon Ebola bi fala ma fekkoon. donc naka ngeen ko dundee ak lan moo la dugal si compétition boobu. bon c' était pas facile ah c' était pas facile. parce mm. que Ebola ba mu ñëwee Guinée ñëpp a jaaxle. waaw waaw ñëpp a jaaxle parce que. li ñu expliqué ne maladie bi noonu la ñëwee noonu lay contaminé nit ñi. xam nga boo ko tegloo rek après mm. da nga yow da ngay. da ngay tiit voilà da ngay tiit quoi. Mm-hmm. donc yàlla nag dimbali nañ ci. Mhm. yàlla moom daf ñu dimbali parce que man ñun moom franchement parler mësuñu gis koo xam ne dafa Ebola. te mësuñu gis koo xam ne dee nañu ne Ebola moo ko rey dañu daan dégg rek ci média yi naan ki diw am na ku gaañu fii am na ku gaañu fii. Mhm. donc ñun dama naan yàlla moo ñu ci ko quoi. Mhm. au compétition bi man li ma si dugal mooy que euh, xeex Ebola. ok voilà sensibiliser nit ñi en tant qu'artiste merci sensibiliser nit ñi. à que ñoom ñu comprendre naka la ñuy bu ba bañ a euh, kii. comment eh, dire am accès ci kii bi quoi ci ci voilà voilà ci maladie bi hmm. donc euh, loolu moom poussé ma participer c'est une compétition boo xam ne euh, dañu doon def casting am na quelque chose de quatre cent et quelques yoo xam ne hmm. dañ ñëw def casting ñu jël si hmm. quinze personnes quinze nga bokkoon ci voilà quinze personnes yooyu ma bokk si léegi ba ñu jëlee quinze personnes yi ñu jubal direct demi-finale ak quinze personnes yi ñu defee demi-finale euh, ñu jël cinq Euh, cinq finalistes. Mhm. cinq finalistes yooyu mu bokk si. macha allah ba ñu defee final ma jël troisième prix. troisième prix bi voilà ma jël troisième prix bi. macha allah waaw loolu nag moo nekkoon euh, compétition. lan moo la yóbbu woon Guinée. bon Guinée aventure moom fa yóbboon dama doon liggéey. voilà en même temps di continuer li musique bi en même temps quoi. ok euh, lan bon amour musique bi rek ah. ok amour bi. <laughs> c'est c'est venu comment naka nga xamee ni tu as une voix. bon euh, comment c'est naka la ñëwee. bon au début depuis ma nekkee xale na dama daan mhm. woyantu. di ah, di woy son wi sunduur. xam nga la ah. moo tax man mënuma ñëw def musique xam nga jàng musique ndànk ndànk moo mën ko. lan nga ñu mën a may si ndeer nii en acapella euh, lan loolu nga koy foowee warul ne bul ko jege te bul ko laali dorog baaxul uh, ne bul ko xeeb bul ko xeeb ba tax nga foowe foowee wallaay ndeysaan tey loolu yombul xam nga uh, bi Alioune Paye mhm. Der di woyee mhm, mhm, nga jàng ci woy eh, kañ nga tax eh, toog toog nag wat defe naa sax atum 2006 la nga ni nag léegi nag eh, jot na ma ma wane sama bopp ana man ma ma bokk ci langue gi waaw naka la ñëwee nag est-ce que dafa doyoon rek nga doon nga doon imiter gars yi ñoom Alioune Mbaye Nder comment naka la ñëwee yow ba nga ni nag vraiment day jot na nag ba ma bokk dama dama doon imiter mais mën naa la wax ne tamit euh, bas âge man su ma amoon ku may jàppale mel ni par exemple koo xam ne grand artiste boo xam ne maa ngi ci wetam. Mhm. bon mën naa la wax ne tey jii way su naa fii nii. mais au fait loolu aw ma ko. amoo ko nekk voilà mhm. nekk ma ci famille boo xam ne dañuy def musique en même temps. Mhm. dama dem ba sentir sama bopp ma ne xaaral parce que dama dem jënd guitare sax. nga ma jënd guitare commencé di jàng cours yi ndànk ndànk. Mm-hmm. en même temps di dem géej di defar voix bi en même temps. ba tey jii nii euh, laa mujjee. pour pour jàng guitare ba tey Douta Seck laa nekk. yaa ngi foofu ba tey. waaw ba tey maa ngi fa parce que dañuy waajal suñu fin d'année bi incha allah le 4. Mm-hmm. invité naa la le bi nga ñëwee petit déj. bi ñu mhm. paree waxuma la woon nga dem Douta Seck. si si waaw waxoon nga ma ko. waaw mais après ba ñu paree. ci mhm. la bi ñu paree ci émission bi ci laa ah. dem Douta Seck. voilà et franchement parler nag Douta Seck moom jëlee naa fa lu bëri jëlee naa fa. parce que dama ko invité ah gis mu am talent bi nga xam ne vraiment yéen ko dégg. Mhm. mélodieuse également mu yore guitare di jouer mais. xam naa ni bu demee Douta Seck dina am lu yokk si moom mhm. dem nga am na lu yokk si yow mhm. yaa ngi yaa ngi waajal sa mhm. sa sortie wala seen sortie waaye suñu suñu sortie bi incha allah donc dinañ si teew euh, bëgg naa également ñu wax sa digganteek Fafadi euh, naka nga xamee Fafadi nekkoon nga si labelam naka la ñëwee loolu bon Fafadi euh, kay naa moom xaw ma woon bu baax mais Fafadi ñëw na Dougar en 2007. ok man maa ko accueillir. yaa ko accueillir. voilà ndeysaan man maa ko accueillir parce que matériel yi tëgg concert boobu bu mu doon mm-hmm. joué Dougar. Mm-hmm. matériel yi mu woon sama loxo. ok moo tax man la maa ko accueillir. te ba mu ñëwee man maa joué première partie bi. ndeysaan 2007 c' vrai que gisewuñu mais ba ma joué ba pare. Uh-huh. magam mi nekkoon ménagère am. Uh-huh. dafa woo sama grand frère bi mu ne ko booy bi nii kan la. grand frère bi ne ko kii sama rakk la. mu ne ko boo leen jàppalee booy bi dina dem. dina dem ménagère Fafali moo wax loolu. ok sama grand frère woo mu wax ma ko. Mhm. bu ne ma nag bëgg naa nga liggéey. muy DJ Ziza. Ziza il faut ma il faut ma bëggee ko ci yi. wala moom mu woo ma wax ma ko. ci la ma mhm. wutalee instrumental nag mu ne ma ah liggéey fu mu toll nii moom liggéey. liggéey rek voilà. may liggéey may tëju di répété ak sama grand Moussa. Moussa mhm. di SC5. ok ñuy di répété di répété ba macha allah tey xam nga ko évolution commencé am. Mhm. voilà soo koy am léegi euh, ban maxi bi ñu si maxi bi nga xam moom nga njëkk a génne. Mhm. Euh, si atum 2015. Euh, octobre la. yan morceau ñoo si nekkoon. bon man si Marosa mooy single promotion bi. ok mais après dinañ ci am benn son molo molo. petit à petit quoi. molo molo. voilà. ak benn son boo xam ne tamit enlève pour l'enlèvement des enfants. ok d'accord euh, benn son boo xam ne tamit dem ci woy sama yaay. ok boobu mooy mooy max bi waaj a ñëw. mooy max bi waaj a ñëw mais bi bu njëkk bi laa wax bu njëkk bi ah, yan son ñoo see ko voilà bu njëkk bi. Mhm. Euh, def naa ci Douga Zimbale. ak Ayame Man. Mhm. ak Cosaan. Euh, ak immigré clandestin. Euh, ban moo si gën a enfin le gars yi di gën a consommer si maxi boobu. bon euh, boo ñëwee spectacle ñu lay laaj morceau ban la euh, si. est-ce am na bon si na. am na waaw ban la si. c'est Ayame Man bi moom dañ ma koy laaj à chaque fois nii. parce que xam naa ni originalité bi mën nga ñu si yëkkati tuuti rek voilà originalité bi yëkkati ñu si doomu Adama. liggéey moo ko yor kon nañu liggéey mana suñu bopp ba kenn bañ ñu yàpp randaleen ne easy life life bu yomb du teey tërale moo gën a wóor gam sa bopp gën a foo mën a ne na nga daan sa doole ba mel ni dooto dee mën a yor sa gale teel a jóg fayit bañ a xaar ñu wax la ko nga di góor mbaa muy jigéen saa yo naagoo dellu gannaaw waaw waaw waaw su ma gireere ndaw yi sanko waaw waaw waaw I since I'm a man I up and find my way if you see me in ups and down ina mi se na kiis a kiis bu ñu mm-hmm. ñëwee si say texte mm-hmm, eh, mm-hmm. si lan ngay gën a bind bon eh, si li may gën a bind mooy bon pour le moment moom xam naa ne mbëggeel bi moom dama siy touché parce que. Ah, chaque chaque chaque projet bu may génnee. il faut ma mm-hmm. def ci benn titre mbëggeel. mais ci li may gën a bind bind dëgg dëgg dëgg. Mm-hmm. aller pour les enfants abandonnés. voilà loolu dañ si ñëw léegi si laa bëgg ñu ñëw. Mm-hmm. Euh, mais euh, bëgg naa aussi tamit nga wax ma tuuti euh, lu tax nga choisir Ndiaye. bu bu bu bu bu TFM. Mhm. en tant qu'artiste comédien. Mhm. Eh, tey nga nga ni da ngay wala boog da ngay am am une mhm. pour les enfants talibés. Eh, eh, naka la ñëwee loolu bala ñuy dugg si si si si si li nga ci wax. bon avant tout Ndiaye. sama grand sama xarit la. ok Ndiaye moom sama xarit la jàppale na ma ci lu bëri. voilà baax ku baax jikko quoi. donc euh, idée boobu fa mu ñëwee mooy que. xam nga mag Ndiaye dañuy joué parce que Ndiaye yóbbu na ma ba Ziguinchor. ok yóbbu na ma ba su ba ba Mbour. la gëm gëm voilà voilà merci ñuy mhm. joué eh, ay spectacle ma koy joué guitare di ko awul en même temps may joué mu may awul. ok donc voilà jot nañu dem ci ay ay spectacle yu bëri ay Magic Land. Euh, teeru bi dem nañu fa joué ay soirée. ay soirée voilà donc euh, idée bi moom dafa ñëwee benn suuf dañu doon répété. Mhm. voilà. Mm-hmm. am benn association boo xam ne dañuy dañuy soutenir les enfants abandonnés. Ah, ok association Marilo Sagna. Mm-hmm. léegi ba ñu joué ba pare fekk seen seen directeur mu ngi foofu. Mm-hmm. léegi ba mu dégloo may woy nii mu ne ma est-ce que man naa def benn euh, son pour. pour xale yi voilà léegi fekk moom man man moom am naa son yi ba pare. voilà ci laa def. acapella nii mu def film mu filmé kii bi yóbbu ko yóbbul ko daam bi présidente bi. ok léegi ci la présidente bi gisee affaire bi mu ne nice na mu financé projet bi. projet bi mu financé projet bi nag man ak Ndiaye def ko def clip bi lancé ko. ok naka ban aperçu nga si am bi nga ko lancé. ba léegi yaa yaa ngi ci am retombé cest dire est que naka la ko xale yi. Euh, euh, bon vraiment accueillir. waaye waaw bon franchement xale yi moom rafetlu lañ ko. Mhm. rafetlu nañ ko trop euh, bien vrai que dafa nekk projet boo xam ne amul poursuivre. amul amul amul amul euh, promotion bi si war merci amul promotion bi ci war dëgg dëgg dëgg mais boo seetee euh, son bu son bu naay son bu jaar yoon la mhm. voilà loo si wax lan nga wax si biir si texte boobu mm, waaw texte xale yi loolu leen wax nee na ne laissez pas l'injustice priver ces enfants d'amour mhm. Mhm. Passez par l'injustice privée, ces enfants d'amour et de tendresse. Ne laissez pas l'indifférent la solitude et la détresse. xale bu yalwaan si mbedd mi du yoon ku ci am sa doom ko yar ko di ko aayo nenne ba mu màgg njariñ la yaay yaral sa xale mooy avenir um réew bu jàngulee fu ñu jëm te bu sañoon saa yu yeewoo gis ndey baay di foog ñoom donner la chance aux enfants talibés d'avoir la santé donner la chance aux enfants talibés d'être éduqués Donnez la chance aux enfants talibés oh, Magnifique. Euh, bëgg naa ñu wax également si li nga xam ne moom mooy euh, si li nga xam ne moom mooy sa euh, langue yi. Mm-hmm. maanaam làkk yi nga wax parce que mm-hmm. yaa ngi mm-hmm. yaa ngi naan dem nga Guinée. bare na am na làkk yoo fa am. waay booleeg yow ah. séeréer bi booleeg olof bi ngay wax. anglais bi ah. français am yooyu yëpp da nga way. waaw yëpp yëpp dama si woy daal yooyu yëpp am nga si mhm. eh, am nga si texte waaw yooyu yëpp am naa si texte suusu dama si créé maniqué aussi souvent nii dama siy créé parce que am naa ci ay quelques idées mhm. parfois ni su ma kalee nii am na sama gars yi may woo xam nga ñu ma mhm. mais pël laa xam ne am naa ko quoi pël lu ma si bëgg bind moom dama koy bind dama koy bind waaw suusu la même chose macha allah macha allah séeréer Euh, wolof français anglais yooyu yëpp dama siy bind. Euh, ñu ñëw si li nga xam max bi nga xam yaa ngi ko doon wax léegi yi nga xam moom ngay waajal. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, Marose. Mm-hmm. dina annoncé li nga xam ne moom mooy les couleurs. voilà léegi nag bëgg naa ñu ñëw si maxi bi. pourquoi nga def choix wu rek def ay maxi. amagoo projet album wala lan la wala wala wala producteur nga manqué c'est c'est quoi. bon si si si am nañu projet album. Mhm. parce que déjà commencé nañu album bi voilà donc euh, mën naa la wax ne album bi defagum nañ ci lu mat ay mhm. mais dañ ko garder pour le moment. Mhm. parce que maxi bi nii nii son yi ciy génnee bokkut ak album bi. mais li waral ñu def loolu nag mooy que. promotion bi la ñu war a la ñu bëgg a def ba pare c'est loolu idée staff bi la quoi staff euh, ñoom dañu gis ne daal ñu def ay maxi génnee ko boo xam nga gën a siiw. comme ça voilà nga mën a jaay album bi. parce que euh, je pense que bu la kenn xamu nii doo doo mën a jaay album bi. c'est vrai que xam nañu daaw maximum bu wootee day fees mais côté bële. ok voilà sama sama sama diwaan voilà foofu moom macha allah moom mhm. foofu moom gars yi xam nañu ma quoi. Mhm. mais pour nga jaay sa album je pense que il faut nga jàpp Sénégal. Sénégal non mooy il faut nga jàpp Sénégal absolument absolument voilà euh, lan ngay xaar actuellement lan la ñu mën a xaar si maxi boobu euh, si si genre musical. bon maxi bi bon dina am bon genre afro musique. afro musique xam naa moo ci gën a bëri. Mm-hmm, moo ciy gën a bëri mais voilà afro musique. Mm-hmm. mais xam naa dina am ay sons acoustiques. acoustiques deux ou trois sons acoustiques quoi. ok euh, yan yan yan ko doon wax boo ko mënee mm-hmm, rappeler. yan titre lañ ci mën a xaar. bon Maros déjà est partant. a Molo Molo. Euh, une chanson que j'ai chantée usant euh, style nigérien. Okay. Euh, Molo Molo. Euh, okay. Euh, il y a une chanson aussi pour l'enlèvement des enfants. Mm -hmm. Il y a une chanson que j'ai chantée pour ma maman. Bah. Mm. Donc, euh, ça. Mhm. Mhm. Ouais, ça. Yeah. Mm -hmm. Voilà, yeah. ça c'est important. Mhm, Et euh, en tout cas, lan fan nga bëgg yegg si musique bi foo foo bëgg yóbbu musique sénégalaise. wala sax musique africaine parce qu'on parle on dañu dinañu mën a wax si Guinée mën a wax si Sénégal bi nga xam fi nga juddoo mais Guinée également dafa bokk si yow fan nga bëgg yóbbu musique africaine bon vraiment bëgg naa ko yóbbu fu sori inshallah Mm-hmm. moo tax tey jii nii ma jóg jàng musique uniquement pour jàng musique mm-hmm. so nit ki booy def dara boo ko xamul mm-hmm. eh, demel ni yow bon euh, tu vas pas te sentir dans ce que tu fais am na milieu yoo xam ne boo ci demee doo doo bokk doo bokk c'est il faut nga jàng ko xam ko nga am lépp amee ah, donc loolu laa ci bëgg quoi dama bëgg man musique africain ñu mm-hmm. reconnaître ko carrément. carrément sur le plan international. international voilà. Euh, say say say projet lan la à part mm-hmm. euh, maxi bi nga xam moom ngay waaj a génne mm-hmm. ndax yaa ngi def ay live yaa ngi gars yi fan la li mën a fekk su fekkee am na wala comment ça sa sa sa passe tes live. bon pour le moment pour le moment. wala say prestation mais vacances vacances 2017 yi maa ngi doon a Diamniadio benn restaurant. ok voilà mais après Euh, dama ko dañ ko arrêté. arrêté waaw dañ ko arrêté. mais keroog laa jóge Saint-Louis muy lundi incha allah. Mhm. lundi laa fa jóge te war naa fa delluwaat parce que dama fa am ay projet yoo xam ne. ci ay restaurant la restaurant ak hôtel yi nekk foofu voilà waaw muy noonu. parce que mhm. répété pas de chansons interprétation ak samay son. Mhm. so même son Baaba Maal bi nii sànq ma doon woy nii mosuma ko woy live. ci ci kii mais dama ñëw tey rek ma ne xaaral dama nga inspiré mu am inspiration ne xaaral ñu may ko waa Dakar Info comme rek ma ne xaaral ma suyee ko ça passe voilà ndeysaan donc euh, bokkul ci son yi may faral di suyee ah. donc euh, loolu la ñuy préparé projet kii moom euh, live yi moom ci yi moom mhm. yaakaar naa Saint-Louis moom fu mu toll nii war naa fa dem nañu xaar ko waa Ndar sama dëkk Dakar moom amaguma fi dara mais bon j'espère am na ñu mën a naa ñëw essayer xool non di nga am dara gars yi bu ñu seetaan émission bi dinañ la woo quoi bu soobee yàlla moom woo leen ma ma boole leen ak booy bi <laughs> voilà méttiwul donc ñu noonu <laughs> Daouda Ciss euh, son vrai nom daaw maximum euh, naka la daaw maximum bi ñëwee bon daaw maximum bi daal sama gars yi ñoo ma ko tuddee ah mhm. sama gars yi ñoo ma ko tuddee c'est souvent ni bu ñuy daan répété xam nga dañu daan ànd ak géej ñi yor guitare di répété parce mhm. que la plupart man rek maa ci doon joué guitare ñi ci des yëpp yëpp yëpp mhm. man maa leen doon jox ay cours ñoo xam ne dañuy jàng nànk nànk donc euh, man maa daan yore guitare yi mhm. même bu ñu sonnee sax dañuy gis man may jouer yi dem di dem di dem di dem xam nga rek ñoom ci loolu voilà ci loolu lañ ma tuddee maximum voilà maximum bi voilà ok daaw bi muy diminutif mhm. daawuda voilà mhm, donc mu ngi noonu euh, léegi nag euh, lan ngay wax euh, looy tàggoo lan ngay wax say say say say say say soppe say fan xanaa di leen jaajëfal rek waa daaw maximum family Wadda maximum famille man aw ma seen fay. ok c'est même derrière samedi weeru koor bi def nañu benn ndogu di kër boo xam ne man lañ ko jagleel. macha allah boo xam ne ñoom ñoo jël seen décision def ko. Mhm. voilà te sa dërëm demu ci ñoom ñoo génnee te sama dërëm demu ci ñoom ñoo génnee lépp te xool affaire bi dafa réussir ñëpp a ñëw waa Sébikotane waa Bargny. Tëngéej Dugaar ñoom ñëpp a ñëw. macha allah jam ñaajo. jam ko doon defee. Mhm. macha allah maa ngi leen di béggee bu baax a baax di remercier waa Dugar ñoo xam ne ñoom ñoo nekk sama ginnaaw waa Jamñaajo mm. Sébi Kuraan ñoom ñëpp maa leen di bëggee jaajëf eh, kon nag dañ lay bàyyi rek eh, le temps que ngay def Marose pour mm-hmm. terminer mm-hmm. Eh, ma nuyoo di nag remercier nos internautes également mm-hmm. di remercier également sunu réalisateur Omzo ñu koy béggee bu baax a baax di leen jaajëfal yéen ñi nga xam yéen doon seetaan nag depuis le début ah, di leen dig daj incha allah si beneen numéro ganu kër gi si dakar info point net ñu bàyyi leen nag daaw maximum ak beneen son Marose euh, une nouveauté également bi nga xam moom lay waajal euh, si maxi bi nga xam moom lay waaj a jox li nga xam ñooy soppe yi et c'est parti daaw maxima bi ma demee balay mi nga dem sori ma saa su ne sama xel ne ci yow li jóge si yow di ñëw si man man maa ko xam li jóge si man di dem si yow yow yaa ko xam kaay jox ma lii ma moom ma jox la li nga moom baby boy kaay fii jege ma baby am serious ma woo sa loon you no can take your place you are the only one my heart baby I'm serious ma woo sa loon you no can take your place you are the only one may xaar ci golno welin sila yiɗi yildoma si woɓɓe añanima mettatama jigol noon nawya kono ngol mayata an dewiyo ngol mayata si yow laa xamee lamota ñi wax mbëggeel mbëggeel bi ma la bëgg tax na ma nattu ma xool keneen yaa may dund loolu di ma dund loolu nee sama kon waraloo sooxee jege ma jege ma jege ma kaay jege ma jege ma jege ma jege ma jege ma kaay jege ma baby Antonio ma also go from you no one can take your place you are the only one in my heart baby Antonio ma also go from you no one can take your place You are the only one in my heart. Baby, smile for me. Tell me what you want, I will do anything for you. You are the only one I choose. I don't wanna see you lonely, you are my queen. Oh, you make me go all crazy. Baby, you make me fly away. I need your body, I wanna enjoy my love. You are the only one in my heart, in my heart. oh. In your body, all you want. In my heart, oh. In your body, all you want. In my heart, oh, oh, oh. In your body, all you want. In my heart, oh. In your body, all you want. Like I can fall, when it, oh. In your body, all you want. Hey, the garden for when you are the only one in my heart. Hey, yeah, take a look at You are only one. Ana grand Adolphe Coly. mu ngi fa. ñu koy nuyu. <laughs> ñu ngi koy bu baax a baax a baax ndeysaan keroog moo ma yóbbu. Euh, DTV. Mhm. parce que dañ dañ ko invité woon xam nga par la suite moom amul woon euh, moom voilà mu envoyé ma de man maa def. Nicolas moo ko invité woon voilà Nicolas voilà. Nicolas toi même voilà merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal. merci merci beaucoup. prochainement incha